askan monsieur le ministre euh, des finances kon bëgg na xëy na euh, bu ci kanamee nga indi ñu ay leeral ci notamment la situation euh, des 6859 agents contractuels des EPS fi may daanelee rek mooy fenn Sonko mooy suñu candidat incha allah Sonko la ñuy fay la ñuy fal cinquième président de la République du Sénégal may lancer un appel à tous les Sénégalais et à tous les patriotes du Sénégal parrainage bi mu ngi soog a commencé un million deux millions trois millions de parrainage de parrain nañ ko utal basiru Diomaye fay mi nga xam ne suba ñun ñëpp patriotes du Sénégal ci Afrique ci àddina si nañu mobiliser wu pour wan président Macky Sall ne lii mooy tontu bi ñuy indi ci manipulation justice bi mu def ajuma et que Ousmane Sonko on peut l'emprisonner mais on ne peut pas le vaincre un patriote il peut être emprisonné mais il ne sera jamais vaincu donc sénégalais de Saint-Louis à Kédougou de Dakar à Matam de Kaolack à Fatick de Touba à Ziguinchor nañu mobiliser wu en une semaine deux million trois million de de parents pour jom ay fay ñu wan leen ne mbir mi jeex na nga jënd say quarante milliards de ngànnaay jënd say quarante milliards de ngànnaay yow Macky Sall bëgg xeex ak ñun ñu ne la xeexuñu élection la ñuy dem ak yow bëreek yow daan la gañe la jëlee fi yow ak sa parti yow ak sa coalition taxawal fi ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko cinquième président du Sénégal je vous remercie. Serigne Aba Mbacke Thiam Karim Sène se prépare.